salaamaaleykum man la Omar Seye délégué départemental tey comme ni nga ko waxee Cheikh na ñu nekk fii ci marché commercial bu Tivaouane euh, ci jouru Korité euh, ku ne xam na ni déjà euh, feet yu mel nii surproduction de déchets day am ci site yi nga xamante ni foofu lañuy ñuy daje di jaay ak jënd tey nag Sonaged organisé benn journée boo nga xamante ni mooy ñëw ci guddi gi déjà fekk commerçant yi wàcc marché bi libre ñu mën a nettoyer marché bi ba nga xamante si nii fii ak lundi incha allah bu commerçant yi ñëwaat fekk marché bi ci anam bu mucc ayib loolu moo doon tànki tey fii ñuy remercier aussi le maire euh, Demba Diop Sy ci présence am fii ci marché bi euh, di remercier euh, l'ensemble de collaborateur mooy mairie parce que compétence transférée lañ yor ñun mairie la ñuy liggéeyal kon moom bu ko xamee ba déplacé wu ñëw fii fekk ñu ci marché bi da du man dul remercier ko di rafetlu aussi liggéey bi nga xamante si ni éléments yi ñu ngi koy def parce que euh, c'est pas évident jour fête heure bi yaakaar naa ñoom ñëpp waroon na leen fekk seen kër ñu sacrifié wu ñëwaat ci guddi gi pour nettoyer marché bi ñu ciy remercier aussi éléments yi. waaw baax na xam comme ni ñu wax nii dañuy remercier waa Sonaged parce que liggéey liggéey mbalit dafa métti te mënoo jël mbalit pendant que nit ñi di liggéey. donc dañu démb ak barki démb comme nit ñi dañ nekkoon si njaay nit ñi mënuñu woon dugg ci marché bi kenn mënu foon dugg pour liggéey moo tax ñu bàyyi leen ba ñu dem ba ñëpp tëj ba dem ñibbi ñoom yi ñoo commencé liggéey parce que bu ñu koy defati cet gi moo tax parce que cet gi dafa nekk priorité ci dëkk ndax bañ ko fi bàyyee mbalaj mi day gën a yokku te mun na jur ay jàngoro bañ mu jur jàngoro moo tax ñu koy teel dindi parce que mbalit aussi doo ko bàyyi benn place rek boo ko fa bàyyee tey benn fan ñaari fan bu ëllëgee la nga fay fekk mooy gën a garaaw ka la nga fa bàyyi woon loolu moo tax ñoom ñu jël forcing ñëw ko pour commencer ko liggéey léegi pour que léegi balaa nga xam ne que balaa nit ñi di yeewu balaa nit ñi di dellu si marché bi fekk ñoom nettoyé nañu marché bi ba dindi mbalit mi yëpp ba yóbbu ko ba bu ëllëgee boo fi rombee dana mel ni comme kenn nekk fa woon di jaay loolu am importance la dañ ko def ci marché bi mais dañ koy def aussi ci marché Kër Matar di ko def aussi ci marché bi nga def ko aussi euh, gare routière di ko def parti foo xam ne nag day am regroupement de personnes boo xam ne nit ñi dañ fa daan nekk wala ñuy jaay wala ñu def dara ñoom dañ doxaat si guddi gi liggéey ko bu fekkee motul tey tamit bu subaa si guddi aussi dañ koy mottaliwaat parce que loolu mooy li nga xam ne mooy tax bu ëllëgee bu altine nit ñi mën a xëy si nekk ci yoo xam ne ni vraiment set na amul benn problème loolu aussi lu am importance la. quartier nag est-ce que aussi xam nga quartier c'est la collecte quartier oto yi dañuy circuler. donc demain aussi on va faire en sorte que demain dans la journée parce que génne wuñu oto yëpp def naa je trois oto la ñu génnee wala quatre donc dañ bu subaa dana am oto yoo xam dañuy génn foo xam pour nekk a yomb mais suba ñoom dañu mën a liggéey même bu ñu liggéey le matin l' après midi mën a liggéey donc noonu la koy organiser ba nga xamee ne que mbalit yu yëpp à la fin ñii ko mën a récupérer fekk du benn problème waaw <laughs> Sonaged ak UCG benn la c'est-à-dire UCG dañ ko remplacer léegi mu nekk benn société boo xam ne dañ ko dugal biir Sonaged Sonaged léegi mooy société bi nga xam ne moo yore l'ensemble des sociétés yi nga xam ne ñoo daan intervenir ci mbalit bi ñoom ñëpp dañ leen boole créer benn société boo xam ne société nationale boo xam ne moo tudd Sonaged buy regrouper l'ensemble sociétés yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb mbalit mi yëpp monsieur mu mel ni gis nañ ne marché bi bari na ci action yoo xam dafa bëri ay table yu ne fa war des comme est-ce que liggéey boobu noonu maire dinañ ci def pour mën a setal yoon waaw loolu moom à partir de lundi rek liñ ci war a def dinañ ko def jarul publicité heure bi parce que du loo xam ne dañ koy publicité l' tey bale moo ñu indi ñu ngi si cadre bale dañuy yem si cadre bale rek bu ñu balee ba pare li ci des nañ ko waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk pour que au am na ay voies yoo xam ne ni mënuñu bàyyi nit ñi di ko fat voies yi foo ñu ubbi bàyyi nit ñi di jàll dama lay wax tout le ne leen tali ñun accepté wuñu kenn di nekk ci tali accepté wuñu ko tabax ci tali accepté wuñu ko tabax si yoon loolu dafa bokk ci li nga xam ni maire bi loolu kiiwu maire bi la loolu amul amul maire bi amu ci masla c'est-à-dire bu ñu tee masaa mooy ku ci munti nekk dinañ waxtaan ak yow pour seet naka la ñuy def ba nga jógee si place yooyu. comme ni ñuy waxee souvent gérer c'est prévoir tey yaa ngi nekk ci prévention par rapport ak mbalit mi nekk ci marché yi euh, fii ak fan wala fii ak weer euh, dem ci euh, li nga xamante ni mooy hivernage te ku wax tuyaawoon wax aussi tata yi nga xamante ni bari na ay points bas loolu itam est-ce que présentement yaa ngi ciy waxtaan ak say collaborateurs pour waajal lu jëm ci mel. waaw ñu ngi waajal aussi nu mu tudd nawet bi. parce que comme ni mu leen waxoon waxoon naa leen ko avant ne leen am na benn projet boo xam ne ñu ngi koy waaj mooy defar assainissement dëkk bi assainissement en eau pluviale loolu aussi dinañ fexe ba mois bi ñuy dugg mois de mai bi dañ lancer travaux yi bu ci yàlla àndee dinañ ko lancer commencé ko defar léegi-léegi parce que loolu aussi commune bi dafa jëloon responsabilité defar ci marché boo xam ne dañu ne ren dinañ defar mais bu fekkee ñu defar lépp li nga xam ne ñoo wër xurum bi yëpp ak liy wër jàkk yi nga xam ne mooy point central gàmm gi balaa gàmm gi jot nañ ko def ak yi nga xam ne moo nekk ci yoon yi central yi comme Kër Matar wala yooyu dañ fexe nu ñu fexe ba yooyu côté yooyu yëpp ñu fexe ko defar ba nga xam ne ba gàmm gi nit ñee ñëwee nit ci dañu nekk si position bu na en tout cas ñi ngi si liggéey à partir de mois de mai bu ci yàlla àndee daañ ko liggéey liggéey bu gaaw ba nga xamee ne que bu tawee ici nit ñi duñu sentir ne que taw na comme ni ñu defe woon daaw merci